Ubiwat dem bi ak dik bi diggante gox yi nek na li askan wi don xaar ñu dal di ko lu tamit ñi ñu fekk ci bo maraîcher yagon Dakar lol mbekté lañ ci am ndax rek mën a tàmbaliwaat seeni liggéey. Dakar maa may may ngi maa ngi wilaat ñetti weer waaw ñetti weer laa wax deug yalla waaw. yàkkamtuwoon naa ñibbi lol lool parce que ma ab taximan la xam nit mom kum ñun moom daanaka suñu liggéey mom da ngay liggéey am bo liggéey do am wër dafuñ dara wax deug yalla parce que lo mo suñu liggéey quoi waaw. instant yi taxi jàmbur laa yoroon dama ko mujjoon bàyyi dem bi nu moon a ñëw bi yàlla dogalee mu ñëw ci laa doog a ñëw nii wax dëgg yàlla ñun moom suñ kii moom la ñu doon fayeeku démb moom ñu fayeeku tey ba benn waaye bi ma ñëwee couvre-feu bi fekk ma jàpp ma ci diwaan Kaffrine dëkk bi ñoo jàngale damay jàngale jàngalekatu arab la parce que ñun depuis bañ cee ba léegi fayekuñ dara daanaka suñu avancement bu njëkk bi daal bi ñu avancé mujj gi affaire bi dugg bi mu duggee ba léegi mënuñu fexe ba jot suñu fayeer liñ ren moom daal si bi daa njàngam dafa niile daal fayekuñ dara daanaka. yenn xarit yi léeg am ñu ma envoyé dara rek wala nit comme ñun ay nitu lislaam lañ nit léeg-léeg ñëw fa ne ma ñaanal ma nanga ma ñaanal ko mu jëkkati 2000 francs jox ma wala 3000 yooyu laa daan commencé di envoyé kër ga waaw ñoom itam ñu nekk seen matimati luñ lijjanti luñ mën a am jàpp ji jàpp ci fekk bu may mën a amaate leneen lu ma leen mën a envoyé diiru tere dem bi ak dikk bi nekk lu yàgg ci tàmbaliwaat bi askan wi ñu fekk ci boo maraîcher ngir tukki di rafetlu dogal bi nguur gi jël ci wàllu cet ak kaaraange yàgg na tuuti mais quand même baax na parce que booy dugg si si garage bi am na ay mesures de sécurité euh, aussi euh, policier yaa ngi fi ko takku sa masque dañ lay verbaliser booy dugg dañ lay defal gel ñëpp gis naa ne ñëpp daal takk nañ seen masque. am na coppite parce que fi toll nii wax dëgg yàlla da ngay takk say masque daf say say say sel ñun si oto bi laal nañ ay sel ak lu ne laal nañ ko oto bi amul si sarte kenn ku ne fa nga toog nga toog wax dëgg yàlla am na coppite bu baax a baax a baax. manifeste bi client bi boo ñëwee boo jëlee sa ticket ñu jël sa numéro jël sa tur ak sa sant sa numéro téléphone numéro d'identité ak sa destination après ñu def ko ci manifeste bi manifeste bi nag mooy accompagner chauffeur bi pour mu mën a dérouler transport am jusqu'au destination. dañuy jël sa numéro de téléphone jël say filiation avant nga yéeg pour que bu leen mën a amee ñu mën a xam fi ñu lay fekk ak. Euh, Euh, sa numéro ñu mën la oo daal. laaj nañ ma carte d'identité jox naa sama carte d'identité jël nañ sama numéro wax dëgg yàlla bind nañ ko. njëriñu manifeste bi pour contrôle routine au cas bu fekkee ne am na benn cas bu nekk ci ci biir oto bi ñu mën a repérer ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo nekkoon ci biir oto bi loolu mooy njëriñu manifeste bi waaw. bi ñii di tukki bindu ak chauffeur yi donte day yéexal liggéey bi wante moo gën. ci kàddu ñenn ñi. da naa ñëw rek dal di dem yi temps waroon na nga fekk nga nga àgg bu yàgg mais fi mu ne nii xam ne ni moom la sant il faut ñu def ko ñëw dugg ñu jël suñu dentité jox ñu ay kii yooyu naka la tudd yooyu ñu toog léegi di xaar ta bu oto bi waree dem rek mu dal dem. dina am kay client yi nga xam ne amuñu dentité mais seen numéro téléphone rek la ñuy jël enregistré leen. ko amul téléphone amul dante kooku moom duñ ko jël ñooñu mooy mooy ñi ngay gis fii aux alentours. ubbiwaat dem bi ak dikk bi nekkoon lu ñuy yàkkamti dawalkat woto yi ak ñi nga xamante ni dañuy tukki ñëpp si gis seeni bopp ñuy am yaakaar ne rekk charte yi nguur gi jël dinañ ko mën a wéyal.